mbokk yéen ñi di topp programme mu tas xibaar TV da leen ak jaam jàppaleen leen nag ki nga xam ne moom moo di Juan Branco di avocat français bi nga xam ne moom mooy taxawu Ousmane Sonko jamono bii nag teg nañu ko loxo ca Rosso nekk ca Mauritanie. xibaar boobee. Euh, gën nañu ko dëggal ci ëttu assemblée national bu Sénégal ak député bi nga xam ne moom moo di Koura Ndiaye ëttu tasukaay xibaar bii di nag rajo RFM moom tam siiwal na lu ni mel la nga xam ne nag moom la ñu fore ci wébu béy moom nag daanaka ñu ngi ko tege loxo Roso Sénégal gannaaw ba nga xamee ne nag daa duggoon ci ak loocoo ca fi nga xam ne moom moo di Lac Rose ngir dem foofee am na sax ñu itam siiwal ne ak ab maire boo xam ne ma nga fekk baax département bu Tëngéej boo xam ne fan yi rek la ñu ko jàpp ñu seen ko sax ci ab gaalu locco boobee mu ànd ci ak ka nga xam ne moom moo di avocat français boobee di Juan Branco ci xibaar yi nga xam ne itam moom la ñu fore ci euh, Seneweb avocat français boobee nag itam daanaka euh, police ba fekk baax ca Mauritanie moom moo ko teg loxo ci fàttali avocat boobe nag euh, di taxawu Ousmane Sonko dañu ko toppe woon ab information judiciaire boo xam ne daal ci dafa tegu woon ci ndoddam procureur bi daal sàkku ñu am ab mandat d'arrêt international négax ni dimanche bi nag fanweeri fan ak benn ci weeru Soulette dugg na ci biir Sénégal rawatina itam dem bokk ci li nga xam ne moom moo di ab conférence de presse bu avocat yu nga xam ne ñooy taxawu Ousmane Sonko mbir mi nag itam gis nañu ko Juan Branco ak gaalu looco bi nga xam ne moom ngeen di seen nii mu mel nii ci gaal gi la rëccee fa nga xam ne itamit di Lac Rose ah, dal dee jubal ba tefesu Mauritanie fa lañu ko daal dee tege loxo bu leen fàtte abonné ci seen chaîne Tasriba TV def seen ay commentaires